solo point de presse bi nga xam ne dañ leen ko ci convier ngeen ñëw en masse yéen ak seen organ de presse yëpp nga xam ni saa su ne bu ñu leen soxlaa ngeen ñëw di leen xamal ni événement bi ñu jublu muy ouverture officielle la grande mosquée Massalikul Jinaan bi nga xam ni ñoo ngi ko jàpp vingt 27 septembre 2019 mooy vendredi bi prochain ajuma tey jii bu dellusee waaye ouverture officielle bi dafa am ay événement yu bari yoo xam ni ñoo ko sous-tendre muy li nga xam ni mooy waajal bés bi ndax bés bi ñoo ngi koy waajal d'abord en prélude de l'ouverture mooy l'arrivée du khalife général des Mourides à Dakar khalife général des Mourides bi nga xam ni mooy ñëw présider cérémonie officielle d'ouverture de la mosquée mooy ñëw fii après-demain maanaam dimanche ñu koy wax dibéer dimanche 22 septembre lay jóge Touba ñëw fii ci jumaa ji ça sera certainement dans la matinée ba nga xam ni ñoo ngi convier toute la presse que vous représentez di convier toute la population de Dakar et globalement toute la population de ce pays-là ñu ñëw pour teerul ñu gan gu tedd gu màgg googu muy cheikh mouhamadul muntaxa xalif général des mourides ñuy ñaan yàlla na ko fi yàlla yàggalte te wéral ko li nga xam ni nag mooy événement bi mooy d'abord en prélude ni ma ko waxee woon mooy ñëwam gi waaye dama bëgg defal leen benn genèse boo xam ni bu xaw a gàtt ci li nga xam ne lii mooy masalikul naan ak processus bi nga xam ne bii moom moom la topp ba tey ji mu ñëw fii tudd masalikul naan ñu nekk fii dans ce bâtiment auguste batiment bi nga xam ni mooy la première phase du complex de l'institut de recherche nga xam ni mooy jumaa ji fi ñu ne di ko ubbi le 27 avec l'institut Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni c'est la seconde phase bi nga xam ni moom it c'est un autre programme assez important qui boo xam ni la koy composé lu bari bari bari la ci ay facettes ndax dina am ay salle de conférence dina am ay institut de recherche dina am ay salle polyvalente yoo xam ne yi dinañ fay dispenser même maanaam ay cours yoo xam ne yi mi ngi jëm ci ay domaines très précis muy maanaam tout ce qui touche l'enseignement et l'éducation islamique ak lépp loo xam ne lii tamit mi ngi laal wàllu turux yi nga xam ne yi mooy am surtout le soufisme di laal tamit ci jàngale Serigne Touba nga xam ne Serigne Touba jàngaleem yaatu na ndaxte la mu nekk dans la vie sociale Serigne Touba wax na ci bind na ci ba mu laaj nag fi mu nekk ñu toll ci nag vulgariser ko mu toll ci nit ñi xam ko mu toll tamit ci nit ñi man ko jariñoo loolu mooy li nga xam ni mooy solo si nga xam ni sax moo sous aussi idée bi nga xam ne bii Cheikh Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides def na ko pour tabax l'université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni dégg ngeen les travaux ba lancé nañ ko ba commencé nañ ko tabax fële ca Touba mu am un coût global de presque 37 milliards loolu day daal di nekk déjà loo xam ni foofa ca université bi ak fii ci ndakaaru mu doon benn institut boo xam ne day nekk fii ci capitale bi dañuy daal di dugg ci benn académie boo xam ne bii académie Cheikh Ahmadou Bamba la boo xam ne bii sëriñ bi le xalif général des mourides moo koy yoral boppam mu nekk nag loo xam ne lii day loo xam ni xëy na bu fekkee am na lenn lu ñu ci regretté rek mooy yéex a ñëw gi mu yéex a ñëw parce que ñëpp xam nañ ni l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba nekk na enseignement boo xam ne bii monde bi fii mu nekk la ko gën a soxla ndaxte ku nekk xam na ni monde bi mi ngi am ay jafe-jafe ay jafe-jafe yoo xam ne yi multisectoriel te amul benn secteur boo xam ne bi suñu jàmbaar ji suñu yaakaar ji Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bindu ci wax ci ba pare indi ci ay solution yoo xam ne yi bu ñu ko toppee defe naa suñu nekkin ci àddina dina mën a gën a baax parce que nit ñi dañuy faral di jam islaam xamuñu ci lislaam lu dul benn phase boo xam ne bii ideuse boo xam ne nit ñi nga xam ne duñu jullit ñoo ko bëgg kole lislaam ñoo ko ko bëgg teg muy étiquette boo xam ne bii islaam loolu taxu ko jóg ndaxte lislaam ni ko baat bi fu wunde mu nekk baatu jàmm donc lépp loo xam ne lii nekkul jàmm nekkul loo xam ne li nit ñi dañ ko mën a jël mu daal di nekk ak ñoom doon viatique dekk ak ñoom ñu nekk ak moom di dund ak moom lu dul jàmm loolu lislaam doonu ci dara kon il est ñu xam enseignement Cheikh Ahmadou bàmba ak ñi nga xam ne ñii c'est ses ak ñi nga xam ne ñii ñoo ko fi jiitu woon ba dem dans ci lu yàgg a yàgg yàgg nga xam ne de grands penseurs bind nañ ko ci ci loo xam ne lii rek mooy li nga xam ne lii mooy teeyal dunduk doomu aadama loola nag moom la ñu naal fii nga xam ne ça sera la deuxième phase au niveau de sa complexe la mu daal di nekk l'institut de recherche islamique Cheikh Ahmadou Bamba jàkk ji nag ñu nga xam ne dañ ko def ci ak ci sit bi nekk na site boo xam ne bi site boo xam ni l'État du Sénégal moo ko mettre à la disposition de la communauté mu nekk loo xam ni toll na ci soixante mille mètres carrés le gouvernement du président Abdoulaye Wade jëloon ko jox ko la xalif général des Mourides ñu tàmbali fi sa projet la ba defal gum fi lii nga xam ne lii man def nañ ko fi muy jàkka ji nga xam ni moom la ñuy ubbi le 27. yeneen projet yi dinañ leen ko dérouler wax leen ko wax leen processus bi tamit ak lépp loo xam ne lii tàmbali dañ ko ci xam naa ni dañuy bàyyi primeur bi ak la xalif général des mourides comme lii la ñu jëkk a ñu liggéey ko ba mu noppi ba mu koy ubbi boo amee une seconde phase boo xam ne dañ ca war a dem loolu moom dina leen ko annoncé annoncé ko toute la communauté annoncé ko tamit tous les musulmans et les mourides en ñu jëm ni nag ci programme boobu comme je le disais tantôt mu nekk nag programme bu gudd gudd gudd gudd xam naa ni jombul je laisse ça aux bu fekkee ne am na ñuy poser question sur le coût global sur la durée des travaux sur aussi la complexité des des de l'ouvrage ba ñu mën a egsi fii pour ñu dugg rek pour mu mën a gaaw ndax mu ngi guddi ci programme bi nga xam ne dañ koy def kon phase bi nga xam ne bii mën nañ ko tudde muy phase bu njëkk bi mooy ñëw Serigne Mountakha fii ci Ndakaaru nga xam ni dimanche la fiy ñëw ci matinée bi wala ci fin de matinée bi dinañu communiquer ak yéen l'itinéraire bi nga xamee ni bii fi lay aw ba bi muy ñëw fii ci Massalikul Jinaan bu fi ñëwee tamit il va faire la première visite ci jàkka ji dugg ci biir xool ni ñu ko liggéeye nga xam ne moom daan na fi ñëw lu yàgg a yàgg a waaye nag bi trabo finition yi accéléré ak léegi gëj na fi ça doit faire deux mu ñëwee ñu présenté ko liggéey bi mu visité ko ba pare daal di wëlbatiku toog ak ñun ab diir bu fekkee ni taalibe yi mën nañ ko ziyaare ñu ziyaare ko sinon ñu libere ko mu daal di dem ci fa nga xam ni fa lay dal muy kër Serigne Touba gi nga xam ne bii waajal nañ ko rénové nañ ko defar nañ ko ba ku fa dem xam nga ni mucc na ayib def fa xaalis bu baree bari te lépp dara taxul lu dul événement bi mu daal di fay dem foofu mooy nekk sa résidence officielle nga xam ne dina fa nekk ba ñu ubbi jumaa ji mu nekk fa xam naa ni ba heure demam dem loolu lépp bu fekkee ni ñëw na dinañu wax ak son protocole ak ñi nga xam ne ñoo ko yor dinañ leen wax kañ la fiy nekk ak kañ la fiy jóge bu fekkee ni bii nag ñëw na ba toog ci lay ubbi officiellement li nga xam ne lii mooy programme bi tàmbali ci dimanche yi ba ba ñuy ubbi jumaa ji ñoo tënkal leen ci rek tënk yoo xam ne yii moom lañuy moom la ñuy moom la ñu moom la ñuy moom la ñuy tàmbali nga xam ni altine ba altine bi dafa am de journées journée yooyu dañu ko dëjee ñi nga xam ne ñi dañoo newoon ci yoonu wi nga xam ne njabootu Serigne Touba gépp sax la ñu la ñu la ko la ko jagleel mais ku ne xam na ni ce travail ce projet sëriñ Saaliwu Mbakke yal na yàlla yokk ay ngëneelam ak leeram nga xam ni mooy ci njabootu sëriñ Touba gi ki nga xam ni ñu tudde leen doom moom lañ fi mujj a gis moom moo initié woon sa projet là booba pàkk bi nekkul woon fii mu ngi nekk ci terrain bu njëkk bi nekk au croisement de ñaari tali et de la rue de Bopp fa la ñu xayma woon ni dinañ fa def jo jàkka ji mais booba c'était un terrain boo xam ne bu ndaw la ndax superficie excédé wul woon 4000 mètres carrés te xam ngeen ni rek emprise jumaa ji nii mu toll les aires de prière rek laa wax le bâtiment fait plus d'un hectare cest à plus de 10 000 mètres nga xam ni kon jumaa ji xajul woon ci pàkk boobu ndaxte pàkk ba 4000 mètres carrés ça fait euh, tollul sax ci demi hectare or l'emprise réelle de la mosquée et les salles de prière seen emprise bi ça fait un hectare nekk dix mille mètres bi nga xamee ni bii nag xayma nañ ko ci ci loolu ba teg ko première pierre bi ci la yàlla dogal ci ay dogalam sëriñ Salihu Mbacké daal di fiy jóge ndax booba l'idée c'était de faire une extension du site parce que le président d'alors le président Ablaye Wade bëggoon na sax def extension bi mais dafa amoon ay incommodité yu fa amoon ba nga xam ne moo ñu empêché woon ci gàttal pour ne pas rentrer dans les détails ba nga xam ne bii mënuñu fa woon a implanter jumaa ji c'est en ce moment la ma woo instruire ma ni ma na nga wut foo xam ne fii jàkka ji dina ci mën a nekk ci mbaaxu yàlla bi ñuy wut di wut ba ma gis terrain bi ci la ñu ko di jël une option bi ñu jëlee option bi booba c'est ci jamonoy xalifa sët bi nga xam ne moo jëkk a toog ci xalifa sëñ Touba yi muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Falilou boobu moom moo ñëw moo ñëw xool terrain bu njëkk bi xool terrain bi instruire ma ni ma terrain pàkk bi fii la kon pàkk bi fii la ñuy def jumaa ji donc c'est en ce moment précis que le choix a été porté sur ce terrain ñu daldi nag commencé nag dugg dans le processus maintenant de construction de la mosquée bés bu njëkk boobu kon sëriñ Saliou moomu lañ ko jagleel moom lañ ko jagleel sëriñ Cheikh mi nga xam ni mooy xalifaam moo nekk ci boppu njabootam gi dem nañ fa yëg na ko mi ngi préparé pour yónnee ay délégation yoo xam ni journée bi journée sëriñ Saliou la boo leen bëggee dama koy ramasser comme ça mais mën naa jox Ablaye Diop après mu liir programme bi wala sëñ Maxtaar liiral leen programme bi jour par jour le lun mardi beneen journée la boo xam ne bii dañu ko déjee la mère la sainte maam jaaratullaay soxna jaara Bousso di woy jiru jigéenu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul suñu yaakaar nga xam ni lépp lu am ci moom la ame ñu déjee ko toute la journée et au-delà même de son auguste personnage ñu déjee ko toutes les femmes du monde yi nga xam ni œuvré nañu ci lislaam taxaw nañu ci lislaam am na lu ñu màndargale l'islam ñu boole leen ci journée boobu muy journée maam jaaratullaay nga xam ni c'est le mardi nga xam ni on aura des conférences des bu ko defee bu ñu paree léegi dinañ leen liiral thèmes yi ak ñi koy def et les conférenciers et les modérateurs ak panel yoo xam ne yi dina am ci biir conférence yooyu le soir mu nekk soirée boo xam ni veillée religieuse la boo xam ni ñoo ngi ko tuddee taalibe bu mag boo xam ni bi maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu ko tuddee ñépp xam ko ñu tuddee ko Babul Mouridine c'est-à-dire la porte du de la Mouridia moom la ñuy jagleel la soirée du mardi le mercredi nekk une journée boo xam ni dañ ko dijjee le premier xalif bi nga xam ni moom moo jëkk a toog doon xalifa sëriñ Touba ba pare doon sëtam muy cheikh Mouhamadou Lamine Bara Falilou bi nga xam ni mi ngi toog ci xilaafa gi en 2007 en décembre 2007 ba au mois de juin 2010 la fi jóge moom la ñu déjee journée boobu mu daal di nekk dans le même tempo nga xam ne nous de des des conférences nous aurons des débats le matin et l'après-midi nga xam ni ci la ñuy waxtaanee lu bari lu jëm ci ay thèmes yu variés yoo xam ni dinañ leen ko liiral am na en nangale am na en français am na tamit en wolof et am na aussi en arabe lépp def nañ ko dans programme programme bi tamit dinañ leen ko distribuer après yéen toute la presse pour ngeen mën na suivre tous les jours lii xew ci journée yi ak ban heure lay xew ak fu muy xewee mais fi muy xewee lépp ci esplanade bi fii lañ koy defee ci Massalikul Jinaan le jour d'après mu tombe loolu mooy mercredi bi le lendemain du jeudi mu nekk journée boo xam ni journée bu chargé lay doon ndaxte journée bi ñoo ngi ko jagle sëñ Sidil maxtar Mbacké nekk le deuxième petit-fils xalif général des Mourides nekk le septième xalif de Serigne Touba bi nga xam ni l'effectivité des travaux de la mosquée Massalikul Jinaan ci moom la tàmbalee ba daanaka liggéey bi bëgg noppi ci ay loxoom li ci des sëriñ mun Mouhamadul Muntaxa eggale ko moom la ñu tuddee journée jeudi bi nga xam ni dinañ ci def tamit ay waxtaan ay conférence le matin ba nga ba midi deux heures après midi bi sëriñ bi day ñëw fii ci Massalikul Jinaan parce que dañ ci am un grand rassemblement boo xam ne bii dañ fiy def bayaan bayaan bi mooy c'est une déclaration déclaration boo xam ne bii sëriñ bi moo koy def avec un thème précis boo xam ni c'est un appel bu muy lancer toute la communauté internationale lancer ko particulièrement la communauté islamique et le les Sénégalais globalement ak taalibey murit yi nga xam ne bayaan boobu dañ fi nekk à partir de 15 heures ba 18 nga xam ne y aura des discours bu sëriñ bi defee bayaanam ba pare dina am yeneen i discours yoo xam ne yi dinañ ko ci teg yoo xam ni Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo porte parole bi dina ko ci def man mii jombul le coordonnateur dinaa ko ci def l'après-midi tamit ñu continuer bu loolu jeexee ñu continuer les les les conférences ci ngoon nga ñu def une grande veillée religieuse en prélude de l'ouverture de la mosquée le lendemain le vendredi parce que vendredi bi sëriñ bi dafa ni buñ ci def benn manifestation le matin ndaxte ajuma dafa xat et sacré nga xam ni bu ñu xëyee rek li ñuy itteewoo mooy naka la ñuy def ba ubbi jumaa ji bu ko defee ñu préparer la prière nga xam ni les invités yi nga xam ni sëriñ bi daf leen invité ak yi nga xam ni le président de la république le président Macky Sall mi nga xam ni mooy ñëw tamit présider ouverture bi dina ñëw fekke ouverture bi ak ñi nga xam ni daf leen a invité ñu daal di nag jublu ci julli gi waajal julli gi xutba yi bu ñu jullee ba pare tamit jombul sëriñ bi dina am une brève déclaration boo xam ne bii dina ko def loolu daal mooy li nga xam ne mooy le programme globalement bu ñu julee ba pare nag ba dem ci kër yi ba joxe xéewal yi ba pare dañuy daal di def nag toute la soirée mu nekk une veillée religieuse ba le samedi ba nga xam ne bii ci la ñuy boucler le programme globalement loolu en ramassé d'une façon sommaire mooy li nga xam ne lii moo nekk ci programme bi nga xam ni mooy semaine inauguration la grande mosquée Massalikul Jinaan. day doon événement boo xam ni comme ni ko bokkee. événement Sénégal bi yëpp la te jàpp nañu ni tous les sénégalais ku ko man di nga ñëw bokk ak ñun li nga xam ni mbégte la honneur la ci peuple Sénégal honneur la ci umma islamique honneur la tamit ci sénégalais yi nga xam ni yi ñoom ñoo dëkkee ñoo dëkkee réew mi alors bi nga xam ni day nekk manifestation bu rëy boo xam ni mën nañoo jàpp ni manifestation bu ñu toll bu amoon it bariwul ci réew mi ba nga xam ni waajal nañu lu nekk ci biir ñun avec l'État du Sénégal parce que ku lu mel ni ku koy def xam nga ni ñun rek mënuñu ko def État du Sénégal dugal na ci loxoom bu baax a baax a baax mobiliser tous les services de l'État sur le plan de la sécurité sur le plan de la santé sanitaire, c'est-à-dire il un grand collectif, un comité boo xam ne bi sous l'égide du ministère de la Santé et du médecin-chef régional avec de éminents professeurs yoo xam ne yi non seulement c'est des fonctionnaires mais ay taalibe Serigne Touba yu jël volontariat ñëw ànd ak seeni collègues nga xam ni ay centaines de médecins ak i professeurs lañu dinañ fi nekk pour assurer la couverture euh, vraiment médical le professeur Ndaraw est là docteur Ndeye Maguette et le professeur Niang ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi ñoo ngi fii dinañ fi am antenne boo xam ne bi médicale sur place mais dinañ am une large couverture médical au niveau de la région de Dakar ba nga xam ne benn pèlerin foo mën a jóge boo amee jafe-jafe nga am besoin boo xam ne bii dafa war a am une intervention médicale bu ñu war a def ci yow loolu dina am te loolu jël nañu matuwaay yépp y a assez d'ambulances médicalisées le service médical c'est-à-dire l'assistance publique ñi ngi fi les sapeurs-pompiers ñu ngi fi la gendarmerie mi ngi fi donc globalement tous les services de l'État son mobilisés ñuy profiter ci occasion bi pour remercier le président de la République bi nga xam ni il n'a ménagé aucun effort réellement pour nous soutenir le ministère de l'Intérieur d'ailleurs va présider encore le mercredi une dernière réunion de réglage boo xam ne bii dañuy dem intérieur ñu xool bax instruction yi ñu joxe woon yépp def nañ ko wala defuñu ko mais on peut d'ores et déjà dire que instruction yi ñu joxe woon yépp mat na sur le plan de la sécurité sur le plan médical sur le plan de la logistique loolu lépp taxaw nañ ci et sur le plan de la couverture aussi médiatique ndax démb rek réunion nañu avec les gens du Soleil les gens de la RTS et toutes les autres télévisions yi nga xam ni l'État même les convie à une réunion le di à 15 heures parce que xam ngeen sécurité ak télévision ñoom ñooy liggéey il voudrait d'abord vous montrer le lieu l'intérieur wax leen naka lañ fiy mën a liggéeye parce que dinañ fa am d'éminent d'éminente personnalité yoo xam ne yi suñu ay gan lañu alors ba nga xam ne bii bu ko defee yéen di ngeen mën a liggéey seen liggéey convenablement ñoom it dinañ mën a liggéey seen liggéey convenablement le leen ça sera dans l'après-midi on que l'architecte était en voyage, il est là. Notre ami Maïssa, Nian, euh, Maïssa, Maïssa Touré, sa Djojo Touré. C'est lui qui a la chance et le privilège de nous faire ce beau travail, ce bijou. Il l'a fait, il l'a bien pensé. Parce que Kofi Dougou, on n'a aucun complexe avec ce qu'on voit à l'extérieur. gis ma qui di ko gis dans les pays asiatiques les pays arabes et ici en Afrique ku dugg fii di nga xam ni l'architecture est une architecture très pensée une architecture qui est très collée aux réalités même architecturales de ce pays nga xam ni vraiment boo fi duggee di nga xam ni fii c'est un lieu culturel et cultuel ba nga xam ni bii lépp luy l'islam lépp loo xam ni lii c'est une beauté te boo demee ci dëkk islam yi fekk ko fa mi ngi ci avec bien entendu toutes les commodités moom c'est le maître d'œuvre c'est lui qui a le projet moom moo doon architecte bi dafa tukki woon xaw ma ni woon ñëw na nekkoon bala maa annoncé kenn dinaa ko annoncé yaa Mamour qui est à sa à gauche moom c'est le permanent qui est la au niveau de la commission technique parce que au départ on a créé des commissions dans tous les domaines on a créé des commissions commission yooyu globalement ñoo ànd di réunion di réaliser lii ba mu egsi fii ñu confier les travaux à la grande entreprise que je rends hommage d'ailleurs au passage muy le consortium d'entreprises du Sénégal muy CDE qui est dirigé par Adat et les Chemali et autres avec vraiment des techniciens de très haut niveau et surtout même je donnerai par exemple spéciale à la gente féminin kii la là, qui, qui est constituée d'une équipe d'ingénieurs femmes et qui ont pu réaliser tout Donc je fais un grand chapeau à ces dames-là qui ont participé à cela. Donc lii mooy li nga xam ne lii en ramassé moom lañ leen bëggoon a wax. ñaan yàlla yàlla defal ñu ci jàmm xalifa bi ñëw bu ñëwee ñaanal ñu réew mi am jàmm nit ñi juboo doon benn.